li dafa nek euh, firnde ke ndaw ñi ci ab deuk dañu am importance gannaaw bi mo ndokkele bu baax euh, Samba sen mi nga xamné moy mooy président zone bi ak ak jeunesse noto Notto yépp di wax né li ci sport day woné ay mandarga ay jikko yo xamné dafa am importance ci doomu adam ndax xam ngeen sport d'abord lim lay ñëk a jàngal mooy nga naw sa bop waaye aussi moy nga naw say nawlé say adversaire mais aussi nga mëna respecter li ñu naan règle du jeu maanaam buñu ay charte Nous mën respecter. respecté valeurs qui sport la euh, aussi la que euh, tous les segments que ce soit parti politique que ce soit également religion nous euh, renforcer l'unité nationale qui renforcer la cohésion ci bi solo pour une développement le développement comme ñëpp la politique yi

bu fekkee ak wér yaram dafa xaw soxé bo boo wax nit ñi ay stade ay terrain day xaw doy war way inshallah allah à partir de dewen dañ ci jublu baaxa baax ndax nek na légui lo xamné ne faratan ndax xam nga Jobaas amna légui club buñ ñu union sportive euh, di Jobaas am nañu aussi ay club nawetaan yu am doole tay ñu ngi def finale coupe du maire samedi bi di ñëw dañ def finale de la zone anen e également defat aussi la finale de la zone 11 kon gis nga né xalé yi organisé wuñu donc occasion la pour man vraiment bu gën leen ñaax ci fair play ndokkelen également ci organisation bi surtout le président de la zone Samba Sen ak Cheikh Mbodj ñi nga xam ne ñoo yor zone euh noto yëpp yeb biñu président Macky Sall denké li di transport aérien ak tourisme ba léegi amna djéguñ ci def barke ne rek gis ngeen ñu ngi euh, réceptionné ci tektalu njiitu réew mi le président Macky Sall ay avion yu bees yo xamné Airbus A330 Neo lolu li muy wone mooy bés Sénégal day Air Sénégal day dem ci dëkk yi wër Sénégal yëpp waaye aussi day dem Amérique day day day day dem Europe wara dem Londres war a dem Genève wara dem également euh, Espagne donc loolu lu muy moy euh day ubbi Sénégal day connecter Sénégal à travers le monde kon loolu dafa am solo ci walu comme comme dafa am solo également ci walu vitrine réew bi bi moy hub aérien dafa nek ñetti pàcc bi ci ñëk moy aéroport bu mucc ayib ñaareel bi mooy compagnie aérienne bu am doole mais également moy aéroport régional. Da xam war ñu tabax

ñu mën a jël lépp lu jëm ci wàllu tourisme en Amérique euh, ñu mën ko indi fi Sénégal